yaat ma kii mooy Assane cas cas cas bi mu fi mujj cas la def Pape Guy gi waaye ay ay building ay building Baye Fallou Gambie bi ay building borom Serakunda cas maa lay siyaar doole siyaar bu baax loolu nekk maa ngi nii sant yàlla bu baax dugg ci groupe bi nga kite daw xawma loolu ragal non yow moom duggul ci groupe bi yow groupe bi yaa ko ci dugal ñoom Sol Baye Fall ñoo fa nekk ruube la ñoom doomu Mbàkke ne tapet nga nga daw yow nga balaa maax wax dara sax damay nuyu ku ci mel ne ñoom Alioune Seyde ñoom Vieux Koné ak ak sama gars yi ci ginnaaw maa ngi sant bu baax waaw di di leen bëggee bu baax di di jaale tamit suñu garant bi nga xamante ni moo gaa ñuy daaw di sekk di ko ñaanal fi mu tëdd suuf oyof si kawam. di ko la ku baax la woon àjjana bu baax a baax. mais euh, building nee nee bu ñëwee fii nga xam ne lépp dëgg la. non building yow building man instant bi amul lu ma koy wax yow groupe bi yow yaa fi nekk di ko waxal man building. Eh, man waxul ma ay building de Sol Baye Fall moo koy waxal ak doomu Mbacke. non man instant bi amul lu ma koy wax man damay xaar ba bis ba. ñoom Baye Fall ruube wuñ ma sax ma daw ne c'est que xam nga yow groupe bi moom sax yow yaa sax ma nekk ci wax. mais bu doon moo tax tamit te nga lekk man building man building nii damaa yàkkamte sax man ñu bëre ma ak moom. yàlla na fi corona bi gaaw jógee. dafay waroon jógee rek mu ñu bëre ma ak moom moom Adama Boro dina ko nam ma. lu mu ko Adama Boro nam ah xamoo su ma ko xamoon du la xamoo ko moom bu bis baa bu at bi sifflé dina ko xam. mooy borom Serekunda de. dee na jël man maay borom géejawaay fii. Serekunda lay la fa lay war a de. Serekunda foofu yëfam la mais fii ñun géejawaay ñun ñoo ko moom ñun. te wax xam nga ko bu baax am na ñu mu toogal xamoo nga ma dama ko wax ba xam gelam laa la wax gelam sax dañuy déggante whatsapp. pour déggoo li ma lax de. yaa ngi koy tiñal de. laa ilaaha la ma xam ci moom ak a bëri. yaa ngi koy ma ko déggoo li ma lax. li ma lax daa am muy ndékkee sama sama tante ci boppa moo koy jaay ndékk mook sook syndicat bugguma la ko wax mais dinaa la ko wax tey. xam nga ko. dafay ñëw toog sam papa nekk sam papa heure bu na ma building tey sa tante moo ko jaay ndékki ma ne ko lu mu lu mu jël rek nañ ko jox mu lekk. yaa koy fay maay fay. bu bis baa nag lépp dina ko yàbbi. bu arbitre sifflé ba ma jàpp ko ba kor ko dootu ko defati de. mais mais mais eh, est xam nga building nag nan waxante. building moom moo ma xamul man moo ma xamul. non loolu moom. jaar-jaar la rek mais Billy gis nga bu bis baa ñii rek laay déglu ñii. Alioune kii laay déglu. benn kàddu la may wax ma appliqué ko ko mu jeex. mbëru gis waaw bu moo la indi. mel ni coach kii moom ngàcce ngaa la ama. comme coach de. kii lu mu dund doyul. kii ñu buñ ko gisee ci làmb daa am lu muy daa lu muy def ci ñun. ci entraînement yeeg jom fulla lépp kii buñ ko gisee rek koy def ci ñun. looy mujjee wax building. non building lu ma koy wax mooy ju ko ñaanal rek. jàmm. ñaanal mbër yëpp jàmm. ay immeuble bu mag ba nga jël ay building. waaw building immeuble la man immeuble bu ne immeuble bu ne yéeg naa ko. immeuble ñi ko kebe koro yi ñun ñoo ko doon poncé kon immeuble jaaxaluma. ma ne Sandaga. déggoo li ma déggoo ma de sam papa immeuble bu nekk fi sam papa moo ko koro. kon building moomu bu ñëwee dina xam ni koro bu ne poncé naa ko. kontaan naa ci ko jàppee mu xam ni lépp. dina gën a kontaan mon ami mon frère siyaar naa la. <laughs> naa la naka mu mbaa yaa ngi si jàmm. yàlla bu waaw di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sunu kilifa gi nga xamante ne moo fi wàññeeku muy Daado Seck. di ko jaale famille làmb di ko jaale waa Géejawaay yëpp surtout ma cent pour cent Géejawaay di leen wax ne ñàkk nañ kilifa gu mag ñàkk nañ koo xamante ne kenn la woon ci ñun. moo waral sunu teewaay mën naa ne ne ku mës a am làmb ci Géejawaay ak loo mën a xewle da ci daan taxaw. lu nekk da la def ci làmb wax dëgg fa yàlla ñu ngi koy metti lu bu baax a baax a baax di ko jaalee Daado Seck bu baax a baax. mais laa namm da nga bàyyi làmb wala foo nekk. yow sa làmb bi dara baaxu si. gis nga maa ngi ci làmb maa ngi ci contrat. am maa ngi ci contrat. dëgg fa yàlla. d'accord maag Balla Gaye junior bu Lamsar. Eh, taxee. waaw tax na parce que daw na Balla Gaye mais taxee la tournée. yërëm naa la nag sama waaye sama xarit nga mais yërëm naa la Balla Gaye ne ay 140 kilos lay pesé. fan la yërëm di nag yërëm fu muy nekk ci nit laa wax. yërëm naa man sama kanam gi nur naa la ragal. la nga jël la nga jël tar ci ndaa ba doomu nday sita. mosuma bëre làmb ju yomb. yaag jara daa métti woon yaag yaag ngañ jaañ deux daa métti woon yaag yaag xale xale ba ne ginnaaw raay bi mu tëddee sax. man damay xeex ba sama lamb jeex te lay njomboor bi bi muy tëj yaa ko daan waaw kay nag waa loolu jeexal na waay wax njomboor bi muy tëj moom um yaa ko daan moom waaw loolu na wax du lay la dafa mer waaye defet la yow B52 ngay waxal nak nga mer mu mer combat yërmande waaw loolu ci luy bax la amul ruq sedd tarkindaa la te lu mu bax ma ngeer ko tarki yonent bi lu leer la ak mer dama la wax du yomb lu mu ci bëggul bëgguma ci nag lu mu ci bëggul ci wax amul sax ay arrière wala avancé lum mangeer ko té dina xam nga tax moom ci jom bob dina ci takk la la do ñew Siteu moko indi Siteu moko indi lamb ba daw bala gay dem tuddu taqe ba gay ño bari moo tax mu sante tiw mo Siteu man maag mom la du du maag Siteu dégg wax waxi Siteu bu mag dara li do mo wax taqe bu fekkee ne bëgg nga suñu waxtaan neex man taqe la waxal waxuma ak bala gay de waxuma ak Siteu bu mak mag moo indi ay mbir yu ndaw ñu lay man fi may yeewoo amul mbir bu ndaw. barke indi yow man Baye Mandiaye bu ma daree rek sama xol seet na Aliou mu yaay Fatou Sarr rek topp sama ginnaaw. waaw loolu waxatuma ko ci. mais kontaan naa ci yow dinaa gën a yàq. waaw mais bëgg naa yow ñoo fexe yow yàlla. yàlla ba tey ñu des ci géejawaay ndaanaanu géejawaay kii nag mooy double double maa ngi waaw Xaadim maa ngi lay fay bu wér-wér. waaw yaa ngi si jàmm. waaw bu baax. loo mën a wax ci di wax ne moom Daouda grand bu di wax inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin zaa'iqatul mawt di wax ne bakkat bu jëm dund nga ñam dee. Daouda moom suñu mag la suñu grand la ñun ñëpp fi lañ yoroo ko mu naan suur lu bari te daana woon dégg mu ne um xam nga kon tey boo a métti ñëpp day dañu am métti quoi di nga ñaanal fu mu jëm gën a fu mu jigee moom Daouda moom macha allah moom mention spéciale quoi. dan laa ko gis da ngaa bàyyi su ma juul mosoo daanu de. non daanoo gu ma waaye tamit nooy def boo dee tànn léegi laa mujj yàqu ku daan deux combats bu la gisee nga am tuuti di doo jël la mag la kay looy def yow. su doon wàññi maas bi. non barki Mouhamad Rasulullah maas bi sax moo mel ne neexuma man te sax damay entraîné lu métti di mat naa du soir waaye looy def. danga jël poids dëgg la xam nga tamit xale bu ñu entraîné force am lu feeñ ci yow bu nekkee xale nga laa la wax de may mat naa du soir maag sama doom yaay Talaba Sène ak Marley xam nga ñun yoon la ñu am masse bi waye man li gënalu ma barki muhammad Rasulullah dama bëgg bëré waye boy ku ñoo bëgg gis ma day delluwaat orange te lamb du lolu ma sama deux commande ñu ma bëree ñoom ñoom ëpp barki alquran karim ma ngi école balagay ba légui waaw légui fo jëm dan dar nga mamal Lamine ak kan dan na mamal Lamine dan atu ñoo la dan boy commencé di ruuxal xam nga ma ma ta taal toogaat xaar bu neewon parcel mbolo waaw bu nekk parcel mbolo mom la daal sun premier combat sun deuxième combat ma daal Mama Lamine Sarr. léegi Bada Dione. waaw moom laa daal waaw Arou Junior waaw. non ndaanaan nga nag kooku ndaanaan la. non man kay mooy loolu lamb ji xaw ma comprendre ma lan la quoi barki Mouhamad Rasulullah xam naa kay bu nekkee nii la demee may toog daal di buusoo booy ay Baye Ma Ndiaye booy rek. yor sa licence. non man Pape Diagne Sera ma yor sama oh, barki Mouhamad man instant yii bañu bañu benn combat ku ñëw baax lu may wax sa jur rek. ñàkk ngay bañ. ñàkk laay bañ. maa lay bëggee. ziar bi. dëgg la yaatu. waaw jërëjëf incha allah. Taliba waaw. ziar naa delloo ziar naa la baax. ci loolu nekk taalibe waaye sant ngeen. mbëru Marème Touré waaw loolu la waaw mbëru Marème Touré. Marème Touré benn bara waaw ñoo bokk ndey ak baay. xarit la. ah mu njëkk waaw ñoo bokk ndey ak baay. ma bàyyi. bilaay non wala xam ne rek fan yii daa am rakk bu gaañu woon yëg nga ko. rakam bi daa gaañu woon. tey loo ma mën a wax Daara waaye Daara Seck daa nekk suñu grand boo xam ne sini grand bu baax la ba pare ñu yoro ci kër gi tamit yalla suñu bëggé lamb tamit yalla ak Daaro Seck la tamit te mag ah, raxam galas ay gon tamit fi la nekkon nekk mbeur ñu nekk ay boy Bamba Sakes. al Bamba Sakes ñu nekkon ay boy diko supporté yalla def ba dem ba ñu bëgg lamb tay mo moo su gaño tay dañu wara mu ñëw fi feddali kóllëre bi yalla na yalla yàlla rek te xaare ko aljana loolu lañ koy ñaanal bu baax. mais bi mu fi mujj arène national la won de. waaw bi mu fi mujj arène nationale laa mujjee. def lu reuy waaw duma dumay met daan jël lu reuy ay talba si. waaw moo tax gars yi la. dóori na gaa du la jël. Ama ah, Malika laa soxla nag. ñeme woo ko. billaay laa soxla bak sëñ Babacar Si. moom laa soxla nag. Pape Demba bi. booy dañuy waga wagal seen waga si làmmiñ la yem. àggul seen jëf. Mbëbës ay mbokk fa ne. waaye gunaas fii nag. gunaas Mbëbës bu ndaje bu metti lay dañu ay booy Aliou Seye deux lañ. Aliou Seye lu ñuy digal ak loolu la def. kase barki yonent bi billaay kontaan naa ci yow dina a was out.